asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, mbokk yi bu ngeen ah, seetaane caabi boobu ñu leen sànni mu di fayadanatun fi Australia maanaam mbënn moo xam ne dafa am ci continent bi ñuy wax Australie lu ëpp nag téeméeri at lu topp wala ngaan mu mel to waltan mu mel noonu musta ci Australie waaye li ci gën a doy waar mooy waltan mi génne na ay junni junni seeni dëkk ñu toxal leen feneen waltan mi dem na ba egg ci wata yi ak jur gi nag yi xar yi bëy yépp dañuy fey ci biir ndox mi loolu itam yëmu ci waaye dafa am ay jargoñ yoo xam ne dañoo génnee ci biir suuf si te jargan yooyu liñ leen di wax moo di al anaaki bu sàmma am na xeeti jargoñ yu ñuul yu xaw a rëy yoo xam ne dafa am posen bu la mattee day day mel ni jaana la matt moom daal boole nañu ndox muy wala ngaan mbënd mu kenn xamul nu mu yem ay kër di mabbu ay gitti nag di naax saay boole koog eh, ay anakib yoo xam ne ay jargoñ yi ànd ak i posan la dex gi ñuy wax xiyu saayit nag mooy dex gi nga xam ne moo jékki-jékki rek mabbu songu dëkk ya di ko masale su ngeen duggee ci biir caabi boobu da ngeen gis ne eh, mbënd ma daal la ngay bëgg a jeexal Australie Australie nag dëkk la boo xam ne géej gu tiim ci bor bu nekk wet gu nekk géej gu fa féete xam naa bis bu ndox mi di wan na àddina moom Australie ñoom ñoom lay jëkk a wan ci ay waxtu ñu naan Australie ma sonn dafay nekk yan yàlla ci jëf ki sellal